moom képp la ñu yàkkamti woon ndaxte gouvernement bu bees bi loolu la leen diggoon. dund bi dafa jékki-jékki rek tëb daal di cher. état bi da war a taxaw ma ay suivi yu dëgër. ko lépp cher amul lu wàññeeku xam nañ ne nekk yokkute bi mënul xëy rek dal di nekk waaye wàññi bi daal ak fu mu mënti jógee rek day baax ci ñun. c'est un problème un peu compliqué. parce que il faut que ñu jéem a xam ñaata la état bi di jëndee. bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag wàññi njëkk yi loolu la ñëpp di daal di xaar wante nag li ci nëbbu moo bari. dafa am ñoo xam ne ñoom lañ jox importation bi ñoom ñu mooy ci am ci doole ba daanaka leen neex moo ci am ba ñu mën a wañ sax loxo yi nguur ñaareel bi gis nañ port bi dafa posé un problème yu sérieux fii ñu gis ne kay yi ñuy jox produit yi nga xam ne moom la ñuy dundee bëriwuñu benn bateau dafay ñëw fii nekk fi ay weer te du ñëw wàcce ay marchandises am nañ fexe ba dimbali leen bateau bu ñëw wàccee. frais porteur yi tamit gars yi jooyoon nañ ci lu yaatu gis ne li ñu leen di taxé dafa bëri. ñu leen di faral di joxoñ baaraama tuuma borom boutique yi di teggi tuuma ñu ci porox ndoolu nag di woo ñi gàlloo njënd ak njaay mi. ñun dañuy def benn dañuy def benn marge bénéficiaire bu brut mooy lépp luy charge transport ak li ci tegu yépp ñu ne la léegi yow si 15 francs yi nga am ci nga koy jëlee ñaareelu mbir mi dañuy xëy rek ne mercredi dañuy wàññi ñetteelu mbir mi ñoom dañuy xam ne li ñuy sant kenn mënu ko def. waaye dañuy jël communication boo xamante ne dafay xaw a jaxase bi ak ki nga xamante ne moom moo nekk boutique bi. leneen li nga xamante ne buñ ko defee ceeb diwlin suukar ak ñoom seen dina wàññeeku ci diir gu gudd moo di ñu daal di ñoŋal mbayu dëkk bi.